Eh, tabaarakallaahu li nu bëgg a waxtaanee tey <clears throat> muy aj ak lépp lu ci aju dañu waxtaanee incha allah ci tomb yi lan mooy aj ban taxawaay la am ci diine dañu waxtaanee sunu ñaareelu tomb farataay aj yi nga xam ne mënta ñàkk ca aj su la xasee raw rek jàppal ne déwénati waaye aj ga moom ji euh, jekkadi na ñetteelu tom bi ñu waxtaane mooy yi war ca aj yi nga xam ne xam nga nee naa la farata yi mooy yi nga xam ne boo ko defut aj gi yàqu na waajibaat yi mooy yi nga xam ne soo ko defut nag dañ lay teg alamaan rek nga tuur deret incha allah ñeenteelu euh, tomb ba mooy yiñ la tere ne bu ko def soo ko defee dañ lay tegi daan waaye daane du nekk tuuti rek waaye incha allah daañu ñëw ci kanam ci yan daan lay doon juróomeelu tomb bi nuy waxtaanee mooy ana nan la nuy aje waaw ana naka la nuy aje xam dañ la ko dañ la ko defal benn benn benn fiil rek xam ne boo ko jàppoon ci sam xel daanaka bis set rek soo xëyee di nga xam ne tey lii mooy programme bi lii lañ war a def incha allah loolu mooy tomb yi nga xam dana aju ci lii lan mooy aj aj benn ponk la ci ponk diine yi lislaam juróomi ponk ñoo ko ñoo ko yeno bu doon am néeg la ñu ne poto yi juróomi poto la juróomi poto yooyu mooy lan wax nañ na qawaidul islaami xamsun waajibaat wa hiya shahaadataani chartul baaqiyaat summa salaatu wa zakaatu fi lqitaa wa sawmu wal xajju ala man istataa loolu la ibnu achir wax ponk islaam juróom la bis njëkk mooy nga seede ne fas ci sa xol gëm wóolu ne yàlla rek mooy buur bi mat a jaamu mooy buur bi mat a nangul mooy buur bi mat a gëm ñaareel ba mooy nga nangoo julli gëm julli rek doyut waaye nga nangoo julli mooy ñaareel ponk lislaam mënta ñàkk waaye ku bëgg doon jullit it ñetteel ba mooy euh, nga joxe azaka boo amee lu mat nisaab mooy ñetteel ba ñeenteel ba mooy bu koor jotee te amoo benn ngànt nga woor juróomeel bi mooy tomb bii nu bëgg waxtaanee tey mooy aj màkka moom aj nag kon wax naa ne ponk la ci diine moom nag diis gi mu xaw a diis ci wàllu finance ak ni muy jëlee temps ak ni muy yàggee ak tukki ga ni muy yàgg muy yàggee tax na lislaam wooyee falal nu ko ne ñu benn yoon ci dund manam sa dund gi yep bo ci aje makka ben yon jappal na farata ji jeexna na ci dess yep ay nawafil la motax ñi jekku system bi deug ba xasse xasee ben yon yoon yeneen coono ci top ak financement yep dañ koy duggal fanen fo xamne dañ ci amé tiyabu ju upp doole di aj aj nawafil kon lolu moy aj lolu moy taxawayam mom nak ni ko jaamu yalla yep amé dafa am ay farata am ay sunna wala waajibaat waaye am na ajug farata am ajug naafila xam nga julli da am na julli farata am julli naafila koor am koorog farata am koorog naafila koorog gàtt nga niñ koy waxee nga am azaka muy farata ngay saraxe muy naafila yi ajit noonu la amee jëmmi aj muy farata nga am omra ca ga muy naafila ga moom nag alayhi salaam ci mujjug dundam lañ ko sant moom benn yoon rek la aj ci dundam daan na umra nag waaye aj moom benn rek la ko def ci ci dundam moo tax nga dégg sax ibnu na ne alxajju fardun marratan fil umri waaw arkaanuhu inturikat lam tujbari kon ñeen léegi nag loolu mooy jëmmi aj léegi lan mooy farataay aj farataay aj ñeent la soo demee daara ja buñ la koy tënkal dañ naan la li sawato mooy farataay aj loolu nag ab tënk la mooy ñeenti araf yooyu li sa wa to benn bu ci nekk daa tënk benn fartabaaj soo demee màkka ba dégg commission bi ne dañoo war a armal jàppal ne benn fartaangoo armal farata ci fartaay ci fartaay aj armal farata la ci fartaay aj bi jiitu ci farataay aji mooy armal mooy teewal sa yéene war suubu nag ci li la tax a jóg beneen bi topp mooy dox safa ak marwa dox safa ak marwa mooy ñaareelu farataay aj saa soo toogee ba dégg commission bi ne suba dañuy doxee safa ak marwa wala ñu ngi suubu ci dox safa ak marwa bi ne ñaareelu farataango ñetteel bi mooy taxawaayu arafa saa soo dégg ñu ne la arafa yégal ne farataangoog ci farataay aj muy ñetteel bi beneen bi topp mooy wër kaaba ga wër kaaba ga nag inshallah allah ci dëkk ci kanam ñetti xéet la bi nga xam moy farat nak moy mooy bi ñuy def ci bisu tabaski bi ndax so ñëwé mak rek so ñëw ci kaaba gi rek da nga wara wër ñu tuddé ko tawaful qudum moy bi am ñaareel ba moy bi may wax nga moy am ci bisu gi moy ñaareel bo moy farata kon bu ñëk bi nekul farata moy moy wër gi nga koy wër bo yexé ci kaaba gi rek bisub tabaski mooy farata mu des beneen mooy bo tàggatoo boo la ñibbi bilang ñu ne la demal wër kaaba ga tàggoo koko boobu it nekkul farata kon ñetti xeetu wër la ben bi farata muy bi am bisub tabaski kon yooyu mooy ñeenti ai ai léegi nag am na lu ñu tuddee ay waajibaat waajibaat mooy yi nga kam ne so ka bàyyee masalan bu doon jili julli ñu ne sunna la bu doon si julli ñu ne farataay mooy yi ma njëkk wax ñaareel ba moy waji bat moy soko baye nak soko baye da nga wara soko baye da nga wara da nga wara jang li ngay jange nak moy tur deret yoy ban mo jitu moy tawaafu man khadim moy bu ñewé ci kaaba gi wër gi ngui koy wër lolu boko defut dang koy jange ak kon tawaafu man xadim mooy boo ñëwee ci kaaba gi wër googu nga koy wër ñu tuddee ko wër nuyoo boo ko defu da koy jangeeg da nga koy jangeeg deret mooy jokkale wër gi ak dox safa ak marwa boo ko defu da nga koy da nga koy jangeeg deret bi mooy booy wër kaaba ga nga dox boo mënee dox bàyyi fa dox ga dem di dugg ca oto wala dugg ca wele yaa yu demee noona jëmmi bàyyi gi nga bàyyi dox da koy jàng regret bi sopp mooy ñaari rakkaay tawaaf ñaari rakkaay tawaaf mooy euh, soo wëree kaaba ga ba noppi war a julli ñaari rakk ca maqaam Ibrahima ñaari rakk yooyee soo ko bàyyi jëmmi bàyyi ga dana tax ñu teg la alamaanub war a tuur deret benn bu sopp mooy wàcc musdalifa soo bàyyee ko arafa xam boo bàyyee ko arafa jëmmi nan dañ naan la wàccal musdalifa boo bàyyee wàcc googe jàppal ne da ngaa war a tuur su ko defee euh, ñetti fan ya ngay fanaan lool sax téere dañuy faral bind ñetti fan waaye daanaka ñaari fan ndax ñetteel fan ba fay jugee mooy ba ngay fanaan minan boo ko bàyyee da ngay da su ko defee fa ngay armale mooy fa ngay fase aj ga xam nga continent bu ne wala dëkk bu ne dañ naan la yow barab sàngam ngay armale fa ngay yeesalee sa yéene war dugg nag ci liggéey foofee ñu la sant nga yeesalee ko fa soo ko fa bàyyi dem yeesal dem dem yéene ji faneen jëmmi bàyyi gi nga ko bàyyi nag dañ la ci tegi daan dañ la ci teggi daan nga war tudd deret ndax bu fekkee ñi bàyyi ko madinatu war dañ na naan yéen yéen a ngi armale ci barab bu ñuy wax zul xulayfa mooy biiru ali madinatu munawwara googu nag daanaka Sénégal dañ ciy dugg ndax ñun Sénégal bu ñu bàyyi ko Sénégal au lieu que ñu dem directement Màkka dañuy dem Madina te bu fekkee Madina la ñuy bàyyeekoo di dugg Màkka nag dañuy yor àtteeb ku nekk Madina moo tax ñu nit biirul ali moom la waa Sénégal yi di di di di armale su ko defee ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Syrie Cham ak Misra dëkk yooyu mel ni Égypte Maroc ba ci Sénégal gi suñ bàyyi ko ñun direct ñun jox fa lañu ñu war a armale su ko defee ñu bàyyi ko xarnu war a armale Najd ñu bàyyi ko Zaatu Arqin war a armale Irak fekkee ñu bàyyi ko Yelamlam yeman ak yooyu yëpp ay barab la barab bu ci nekk nag. boo fa waree duggee màkk rek foofee ngay armalee su ko defee bàyyi armal googee ñu la sant ci barab yooyu boo ko fa bàyyi dem armalee ci beneen barab bi nga santut loolu nag may waral ñu ñu alamaan la alamaan ak war a bis deret bi topp mooy boo armalee wuroo sol lu nu ñaw soo fa bàyyee ndigal loolee dem sol lu ñu ñaw nag da ko war a jangee tuur dañ laa wax ngay la bay ko fa nga armale ba baa nga yegg ci kaaba ga soo ko bàyyi sa coobarte defoo dara nag dañ naa na tuural deret bis topp mooy boo demoon ba ak jeex nga war a boo fa bàyyi watu ma da ngaa war a tuur deret bis mooy sànni jamra boo sànniwut jamra da ngay tuur kon yooyu mooy yi nga xam ne mooy waajibaat yi su ko defee mu ñëw ci yi nga xam ne dañ la koo tere nga xam ne dañ la koo tere soo ko defee da ngaa war a da ngaa war a def lu ñuy wax jotu jotu mooy lan ma leeral ko fii mooy yii ñu la tere ni soo ko defee dañ la naan xoolal juróom benni miskini jullit kenn ku nga jox ñaari kilo wala ñu ne la waral ñetti fan wala ñu ne la lewetalal lewetalal ab ab ab ab gàtt bi ci gën moy gilem su ko ngatek nga tek ci ngatek su ko defé nga tek ci xar wala bai. bu dee ci tabaski dañ lay lo ci xar wala bai nak sogo a gilem sogo a bu dee jottu aj mak gi nak dañ la naan da ngay jital gilem so ci tek nak so ci tek xar wala bai. yoyé ñu la téré te boko defé euh, jottu gi war la moy loolu nag suñ koy wax mooy jamono ji foofee gën a nekk ab àll waaye jamono ji nga xam ne hôtelier ku wër ci côté gu ne mu ne su la def loola kon soo rëbbee dara masalan nga jàpp ak kéwél wala nga jàpp ak jaar ak yu demee noonu léegi su ko defee xaadu yi mën naan lii nga jàpp bu doon kéwél la mu ne la kon fay ma ci aw am xar su dee mbaam àll la yooyu nga xam nañ koy lekk mu ne la faye ma ci fas wala faye ma ci mbaam loolu xaari mooy xool bu dee jaar la mu ne la faye ma ci aw ab ganaar wala yu demee noonu kon moo tax boo ko reyee da ngaa war a fay waaye yi nga xam nag dañuy yàq wala ñu xaw a am danger yooyu moom rey leen yàq dara lu mel ni jënax lu ni jiit lu mel ni xaj boo xam ne day saydi di fàdd nit ñi yu demee noonu wala lu mel ni jaan yooyu nga xam ne dañuy fàdd rawat na ñuy bëgg a fàdd jëm ci sa kaw yoy mom bo len rayé dara du ci war bo armalé nak do saña sol len lu luy wër masalan lu melni jaaro lu melni montre lu melni lam yoy bo armalee do ko saña sol bo demone ba sol ko nak dañ lay tek alaman bo dosanya ngay goor wala ngay jigen do saña mur sa kanam soo armalee boo dee góor doo sañ muur sa bopp mbaxanaak yu demee noonu yëpp doo ko mën a sol su ko defee gaak yooyu yëpp dañ lay tere nga sol ko loo ci sol rek alamaan day nekk ci kaw su dee jigéen nag muy bëgg dem ci barab xam ne ay góor a nga fa te mën naa am bu bu muurut kanamam fitna dana ca topp mën naa jël dara rek teg ci boppam wàcc ci kanam waaye bëgguñ mu doon luñ programme nga xam dañ koo ñëw ba mu koy sol noonu mën na koo teg ci kaw boppam rek mu wàcc ci kanam dañ lay tere nga diw rawat na diw yu neex yi wala parfum yu neex yi waaye lu mel ni karité yu demee noonu moom nga xam da ko diwoo ngir bañ sa der bi wow wala sa der bi fett wala yu demee noonu loolu dañ la koy may diw yu simple ay karité yu demee noonu mais yi nga xam day am xet yooyu lañ lay tere wala yi nga xam ne ay diw noos dong la doo sañ a euh, ray teeñ doo sañ a dindi tilim maanaam dindi tilim sa yaram yi sax sañoo ko def doo sañ a lelliwe doo sañ a dagg karaw yii ñu la tuddal loo ci def rek eh, maanaam alamande lay war lii nag tere gi day wëy ba baa ngay sànni jamra incha allah ñëw ci fan ngay sànnee jamra boo xasee sànni jamra nag yii ñu la tere yëpp dagan na la ba des ànd ak jigéen ak rëbb ñaar yooyu moom day des gi day tere ba baa ngay def tawaful ifaada mooy wër googee ngay def ci bisu gi sànni jamra yaa ngi ko def ci bis tabaski gi waaye moom moo jiitu tawaaful ifaada loolu moo tax nu tere ko ba baa ngay tawaaful ifaada mooy moom boo xasee sànni jamra dama ne lépp dagan na la ba mu des ànd ak sa soxna ak rëbb ñaar yooyu rek ñoo cay des ñaar yooyu nag boo demee ba def nga tawaaful ifaada mooy wër ga ngay wër kaaba ga muy wëruk farata ga ci bis tabaski ga boo xasee def nag jàppal daanaka aj ga jeex na mën ngaa sañu wat lépp lu ñu la tere woon dagan na incha kon ma ñëw ci ana naka la ñuy ajee léegi nag ana naka la ñuy ajee mbokk mi su la yàlla dimbalee defal la dem màkka war nañoo moytiit naan damay ziyaara ji ren damay aji la ñuy wax ndax boo ne damay ziyaara ji day mel ni xëy na loolu suñu wax suñ tàmmi dañ ko tàmm di wax waaw laa yuaxidukumullahu Bil fi fii aymaanikum walakin waaxidukum bima 'aqadtum al ayman la ngeen wax te djublu ko lol la waye nak damay ziar ji matna naa damay aji lañuy wax ndax tawfiq ji moy aji way ziar ji mom danaka tuwarkal bu la bu le yalla yobbo makka nga aji bo demé ba yegg fa nga wara armalé la ngay ñëk def moy setal lip lu tak ci sa yaram ta nga bëgg mu set mo xam tilim yi ya la moo xam karaw ya nga war a wat la moo xam euh, wee ya ngay lewi la lépp loo bëgg mu dañ sa jëmm man koo dindi ndax comme boo xasee dugg ci àjji dañ la koy tere foofee loo fa bëgg a waajal man ko faa waajal ñaareel bu mooy lan mooy nga sangu charia nag bu tuddee sangu rek benn la ci xam mooy sangu farata léegi-léegi nag lay waral sangu ma mooy wuutale baade masalan jigéen bu gisee deret ba mu jeex ñu ne ko sangul mënoo ñàkk sangu mooy sangum faratàngu wedeng àndee ñaari way dencante suñu àndee ba ñu leen mënu leen a sangu kon mooy sangum farata ak yeneen yi ci topp yëpp su dee fañ sangum sunu nag mooy lu mel ni sangum dem juma wala lu mel ni sangum armal nii nga xam ne boo demee ca euh, siraaju saalik nee na wa sunna bir tasala yuiduhu man naama aw man akala boo demee ci ibnu na nee na wa sunna waxsun bir tasala nu di tëx jiirun wa xaalun jamula kon lii waral sangu mi mooy soppi baat yi léeg mu nekk sangu muñ sopp rek lu mel ne dangaa toog nii yëg ne war ngaa sang wala nga toog nii bëgg a ziyaar yi borom xam-xam yooyu mooy sangaay luñ sopp kon sangu moomee ngay def ba ngay armal mooy sangu mi nga xam ne moom lañ la sant ci charia rek nga sangu sangum farata soo sol yére mais nag doo sol comme yére bu dee jigéen ma mën naa sol yére yu ñaw ak yu demee waaye góor day woddu wutaat neen malaan mu muy teg ci kawam ñu koy tuddee trax mu génne mbaggum nday joram góor noonu lay def waaye moom du sañ sol lu ñaw da ngay sol ñaari dàll waaye nag doo sol dàll yi nga xam ne day ëmb sa tànk bi di ret carax lay doon ndax dañuy bañ lépp loo xam ne day day ëmb cër lu mel ni montre lu mel ni bàgg yu demee noonu yëpp dañ koy tere góor su ko defee nag nga julli ñaar raka ndax yaa ngi préparé ngir war a yeesal si yéene war a dugg nag ci liggéey bi ñaar raka ya raka bu ba fatiha ak qul ya ayyuhal kafiruna kenn ku ne war na ko jéem mokal alquran mokal ko cërub ñenn ñi la waaye mokal ca nag ñëpp ci yem kenn amu ci ngant ñëpp ci war a nga jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kafiruna ci rakam ndik ba jàng fatiha ak suratul ikhlas ci rakam ñaaral ba su defee nga suubu ci liggéey bi su fekkee da ngay war wala da ngay dox nga teewal si yéene nag fas naa yéene sàngam ndax façon aju ñett la façon aju ñett la dafa am aj gu ñu tuddee ñu ne Afrique moom la ñuy njëkk moom la ñuy gën di def rawat na Sénégal te wax nañ ne googu mopp doole am aj gu ñuy wax aju xiraan am aj gu ñuy wax aju tamato lan mooy aju ifraat ajuk ifrat moy ñew nga acc ci makka ba nga ñewé rek tambalé ajga manam ba nga ñewé omra woo dara da nga def directement tambalé armal suba sa acc bu acc gi jexé nak bu la nexé ngomra bu la nex nga def lan lool moy aju ifrat lan moy aju qiran aju qiran moy bi ngay armal aj da nga botalé omra ci gannaaw dal dina ne yene acc waaye moo amarawaale ci gannaaw su ko defee bi nga yéene ba noppi comme aj day am yéene omra day am am yéene nga boole yéene jooja bi nga demee ci wër kaaba ga aj day am wër kaaba ga omra day am wër kaaba ga nga wër kaaba ga aj day am dox safa ak marwa omra euh, day am dox safa ak marwa nga dox safa ak marwa omra gi moom foofa la jeexee ndax omra amul taxawaayu arafa aj moo am taxawaayu arafa ba nga doxee sama moroom rek omra gi jeex na nga wéyal aj ga nag loolu mooy mooy xiraan lan mooy tama tamattu mooy teel nga ñëw bi nga ñëwee ci weeru aj yi nga omra ba noppi soog a yéene nag door sak aj loolu lañ tuddee loolu lañ tuddee tamattu léegi nak fi nga yene moy gannaaw bi nga sango juri ci ñaar rakaa ba noppi nga yeesal sa yene wax asu aso sangam la fa ci yene def su ko defé nak boole nga gungé ko nak wax ak jëf lan moy wax ji wax ji moy nga tambalé nak nan labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka inna alhamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak baat yooyee ngay baamu doo ko bàyyi mukk dinaa la wax fan nga koy bàyyi ci kanam incha allah loolu mooy wax ji jëf ja mooy lan mooy su fekkee ngay dox nga dox su fekkee ngay war nga war kon boole nga wax ak jëf la bay ko gungu na doo ko bàyyi de saa su dara xewee moo xam na ngaa dajeeg sa mbokk ne ah waaye yow diw ñëw nga mu ah, ñëw naa yow ñëw nga ñeen waxtaan noonu wala ngay nelaw wala ngay lekk wala ngay toilette loo meuna def nga pose ko bo paree ci tambali wat sa ka su ko defé ci non ngay nek bo ñewé nak bo do dugg mak bu fekké da nga jaar ci yoonu ñuy wax zitoon bëgg nañ nga sangu fofé bo dugg mak da ngay sangu mais sangu mi du am rag da ngay sotti ndox mi ci sa kaw rek ndax waxoon nañ la fële ba ngay armal ne la dootoo dindit leen luy tilim kon fii da ngay sangu mais da ngay sotti ndox mi rek sa kaw su ko defee nag sopp nañ nga duggee buntu bu ñuy wax kada saniya du ñàkk nag maa ngi la ko xam ne la tur yi léeg-léeg mën nay soppeeku ndax ñun téere yi ñu jàng gis ca tur yooyu mën naam téere téeméeri at ca gannaaw la yëf yi nag avancé na développé na ba fu ne nii ay immeuble la fa am ay hôtel la fa am daanaka ay làmp ay yeneen xàmmekaay ñoo fa am waaye boo jàppee nii ñu la koy waxee mën naa tax lu ñu yegg rek suñ ne lii lañu war def nga naa ah, lii kay déggoon naa ko su ko defee mën na laa yombalal sab liggéey mën naa yombalal commission ba seen liggéey su ko defee nag soo duggee màkka dem ba ca kaaba ga nga pose nag la bayka gi nga bàyyi la bayka gi bàyyi la bayka gi bàyyi lépp loo nekkoon nga sóobu nag jéem a dugg ci kaaba ga kaaba ga bari nay buntu waye bëgg nañ nga duggé buntu bu ñu wax babu salam so duggé nga na ko nu may njëkk def mu ne la ngay ñëk def moy na nga jéem a fóon alxajarul aswad ndax e, kaaba gi bu doon kess go tek sa kanam ci sa côté ndeyjoor dafa am xeer ñu diko tuddé tuddee xajarul aswad muy xeer baye ko al janna wu tedd xeer mag am sa chamay wonen xeer wu ñu tuddé rukunul yamaan fi nak li la sant mooy xajarul aswad nga fon ko tek ci gemu way bëggu nga nga fon ko fon gu and ak lu melni ni mm, nga defee ko noonu teg ci gemu rek su dee xadna bu mënoon lolé nga tek sa loxo tek ci gemu gémmiñ su dee loolu lépp mënuwut nak ndax nit ñi bëri yu demé non juñju ko sa loxo tek ci gemu wa l'islam lu jàppandi la wa kullu ma shaqqa fa anhu yufa li asrihi wa diinu yusru lutfa loolu la siraaju saalik wax su ko defee nga junj ko sa loxo teg si gémmañ daal di kabar nag wax na allahu akbar tàmbali wëriya nag wëriya comme waxoon naa la bu doon kees goo teg sa kanam booy wër jëlal sa loxo ndeyjoor soo jëlee sa loxo ndeyjoor nag kon kaaba ga da lay fiiti càmmooy kaaba ga sa côté càmmooy lay nekkee nga jël sa ndeyjoor su ko defee nga wër soo ñëwee ba yegg ci waneen doj yooyu ma lay wax mu nekk ci wetu kaaba ga tudd rukkunul yemaan yi moom waxuñ la nga teg sa gémmañ waaye su mën nga ko teg ci sa loxo rek teg sa gémmañ boo ko mënut nga daal di koy junj moom teg sa gémmañ noonu nga koy def wër googee nag ñett yu njëkk ya yow góor dangay ngay dangay da ngay cal mel ni luy xaw a daw noonu ñett yu njëkk ya su ko defee ñeent ci des nag nga dox rek normal bu juróom-ñaari waree yeggee nga julli am na barab bu ñu tuddee maqaamu Ibrahima nga julli fa ñaar raaka waaw am na fu ñuy wax almultazam foofa ñaan fa loo bëgg xajaru aswad ñaan fa loo bëgg léegi gannaaw loolu lépp nag na nga delluwaat nag nga fóonaat alxajaru aswad su ko defee nga génn nag génn ca Kaaba ga ndax loolu lépp ma doon lay wax yaa ngi woon ci biir Kaaba ga nga gannaaw bi nga doxee ma man gannaaw bi nga wëree kaaba ga juróom-ñaari yoon ñëw aswad da ngay génn kaaba ga nag foo jëm yaa ngi dem safa eh, safa safa ak marwa kon beneen farata ngi noonu waxoon naa la farata yi léegi loo ma tudd rek da ngay xam naa lii nga dem safa ak marwa ngay dem nga taxaw ca kaw safa jàkkaarloo kaaba ga daal di allahu akbar daal di ne la ilaha illallah daal di buuree safa nag bàyyi koo safa jëm marwa waxuma nag nga bàyyi koo safa dem marwa bàyyi koo waat fa ñëw safa daal di ne am naa benn déedéet boo bàyyi safa jëm marwa boo demee ba yéeg ci kaw marwa da nga naan benn ngi bàyyi ko waat marwa ñëwaat safa daal di ne am na ñaari tuur bàyyi ko waat safa demaat marwa daal di ñett noonu nga koy defee nga xam ne euh, safa gii ñeenti taxawaay nga fay am marwa ñeenti taxawaay nga fay am su ko defee muy nekk juróom-ñaari wër yi nga tàmbalee moom ngay mujjee kon loolu mooy juróom-ñaari wër yu ñuy tuddee dox safaa ak marwa waaye nag am na fa yow góor bat euh, barab bu tuddee bat na masil léegi nag lampe yi verte ñoo fa ne boo fa yeggee na nga gaawal sa dox boo xool ci film yi sax da nga ko gis diggante safa ak marwa dafa am barab bu ñu doon tuddee batnul masil léegi ay lampe yu verte boo fa yeggee rek daal di lay waaxul waaxu tàng wala nga mel ni ku xaw a cal waaye nag diggante boobu loo fa man ci ñaan na ko def mooy bi ngay dox Safa ak Marwa bi ngay wër Kaaba ga tuddal bàkkaar yi yàlla xam na lépp waaye nga yeesalaat tudd gi wane ne yàlla man ak borom njuumte laa yàgg naa juum waaye bi nga may xéewalee dimbale ba ma yegg si fii rafet naa njort ci ne lépp dana baax su ko defee ñaanal sa bopp ñaanal say bokk ñaanal sa njaboot ñaanal jullit ñëpp ku sa xel daj bo ñaanee ba ba ba ba ba sa xel jeex nga génne sa téléphone dem ci répertoire ba fa nga bind numéro ya, di xol tour ya di ñaan so ci paré dugg sa whatsapp di ñaan so ci paré dugg ci sa ami facebook yi mom dal fo japp ne man man nga fa gisaw tour tuddu ko ñaanal ko sama borom jéggulul ko sama borom ñaanal ko sama borom andi ko fofay ñaan lo bëgg te xamné ne ay barami ñaan la waye yëgal nag ne képp kuy wër safa ku kuy wër kaaba ga mënoo ñàkk lii mooy lan lu ñuy wax taharatul xadas lu ñuy wax taharatul xabas waaye lu ñu tuddee euh, sutural awra as sutratu alal awra taharatul xadas mooy lan mooy nanga fexe ba laab su fekkee da ngaa war a tiim nga tiim boo waree jàpp nga jàpp bu dee sangu farata waxoon na la waxoon nañ la ko defoon nga ko ba su fekkee nag euh, ma loolu ma tudd noonu mooy hadas, xadas so, soo mooy taxaratul xadas mooy soo waree eh, tiim nga tiim boo waree jàpp nga jàpp boo waree sang nga sang bu dee taxaratul xabas it kuy wër kaaba ga mënoo na sa set ci sobe sa yére set wecc ci sobe bu doon julli nag danaa la barab bi nga jullee set ci sobe mais fii yaa ngi ci wër kaaba ga beneen bi sopp mooy na nga sol lo xam ne dana muur say awra lii képp kuy wër kaaba ga mënta ci yow su na ngay dox safa nag moom yooye moom moom bu doon na ngay dox safa dañoo sopp rek nga sàmmante gi yi ma wax boo defee loolu ba noppi nag dellool ci sab dal nga wéyalaat nag sa labayka ndax waxoon naa ba nga ñëwee ci kamba ga da koy arrêté ba nga baree ci kamba bay ñibbi nag tàmbaliwaatal say labayka noonu nga koy nekkee ba baa nga yegg arafa mooy juróom-ñeenteelu fan ci tabaski gi waaye laata juróom-ñeenteelu fan ci tabaski amna khutba gu mag go xamni imam da def di ci leral ay aj di ci leral mbir yu bari nang ko ko mo juroom juroom juróom lo fan ci bés juroom juróom-ñetteelu fan mom mom lañu tuddé yawmu tarwiya mom na nga fa génnee nak jëmmi nan na nga fa génnee jëmmi nan su ko juroom juróom-ñeenteelu fan ba nak moy bisub arafa moy bisub arafa bisub arafa ba bu demee ba zawal jot na nga yeesalaat sax càngaay nga jéema nag dem teewee ñaari xutba ya nga xam ne imam da koy def foofa nag da ngay boole tusubaar ak tàkkusaan bu nekk nga jul ko ñaar rakka imaam day pare ci tusubaar rek teg ci tàkkusaan soo paree ca loolee gannaaw tàkkusaan gi na nga yéeg ca doj wa ñuy tuddee arafa waaye nga teew fa rek doj ba sax na nag kii ndax nit ñuy defaraatee jamono waaye nag teewal ca barab ba ñu tuddee arafa teew googu nga fay teew lu war la waaye farata ja piir mi ngi ci gannaaw bu demee ba jant ba sox ba nga xam ne timis jot na doo fa jule timis nag naa la wax fa ngay julli timis su ko defee am na commission yooyu demee noonu léegi nit ñi dañoo yàkkamte ba daanaka du ñuy xaar loole waaye waxtu woowee mooy waxtu farataw mooy gannaaw bu jant soowee nga tok fa ab dir nak waaye do fa jule timis don na timis jotna na nga babbe ko fa nak wa kay nga babbe ko fa sogo jëm musdalifa wa fe soo jëm musdalifa fekk na boba yaangi won ci ñaan jamono ji nga ci eh, jamono ji nga arafa yaangi ñaan yaangi ngi toroxlul juli yaa julli ci ali sar salam yaangi tuddu yalla lo man ci lu bax koy def jamono ji nga ci arafa timis jot na waaye doo fa jël timis nga bàyyi koo fa nag jëm musdalifa soo demee musdalifa bëgg nañ euh, nga nga nga nga julli fa timis te wàññi fa gee ndax comme timis mënee su ko wàññi moom ñett raakaal la xas na mel noona gee ñeent raakaal da nga ko fay wàññi nga booleel ñoom ñaar bëgg nañ euh, nga jàdd nga nga fanaan nga xam ne musdalifa wàcce fa say bagage dundal guddi ga ndax yaang ci si ñentelu fan tabaski bo xëyee la boo xëyee boo la tabaski guddi ga guddi gu màgg la nga tudd di nelaw nga dundal fa guddi ga musdalifa ba nga xey yaangi musdalifa bisu tebaski nga julli suba so julle suba rek waratal sa way dal di genn bëgg nañ nga taxaw ñaan ci barab ñu wax al mashar bu dee ba bëdd di set nga dal di fay ko boo yeggee ci barab bu ñu wax bat nu waa di naar na nga waaxut gaawal sa doxin su ko defee nag nga wëy jëm nan ndax xam nga yaa ngi xëyee fa ca bisu Tabaski ga ba nga fa xëyee nag foofu ma lay wax yëpp ay macha allah raam bat nu waa di naar du ñàkk tuyee ko na waaye fooy jaar la rek waaye jëmoo fa yaa ngi jëm nan waaw yaa ngi jëm nan ndax da ngaa war a ji. jamra ju ñu tuddee jamratul aqaba nga xam ne moom laa waxoon ca gannaaw ne boo ko xasee sànni euh, fekk euh, boo xasee sànni liñ la tere woon lépp mayaat nañ la ko ba mu jigéen ak rëbb yaa nga min nan kon sànni nga jamratul aqaba juróom-ñaar doj lay doon moom rek ngay sànni ci bis tabaski gi doj yooye ba nga fanaanee musdalifa ca nga ko wutoon doj yu ndaw lay doon tollook sëb rek foofa nag mooy bisu tabaski ga nga locc a xadiyu fu ne sax ni mënoo faa nekk di locc xadiyu waaye ab lañ lay jox rek nga joxe njëg njëggu tool noonee njëggu tool ni njëgu tabaski su ko defee nag boo boo boo boo sànnee jamra ba noppi nga wattu nag yaa ngi minan ba tey ndax fi nga doon sànnee jamra bi daal dafay bàyyeekoo nag jëm ca Kaaba ga daal di wër mooy tawaaful ifaada mooy wërug farata gi tawaaful ifaada mooy wërug farata gi comme noonee ma la ko waxoon ci nga fóon xajarul aswad jël sa loxob ndeyjoor nga xam ne kaaba ga da lay féete càmm yi saa soo ci rukkul imaan yi nga fóon ko def ko ba mu juróom-ñaari yoon comme na ma la ko waxee woon nag boo paree nga fóonaat xajarul aswad comme noonee ma ko waxee woon wër ga nga defoon ca tawaaful ba nga dikkee di nuyu kaaba ga nanga doon wëree noonu ngay wëraate ci tawaaful ifaada gi soo paree nag a ah, nga daldi dem mi waaw daldi fa julli tusubaar xam nga wax naa fi ne ni bàyyi nga minan yaa ngi woon ca Kaaba ga nga dellu minan julli fa tusubaar su fekkee yàlla dogalu nga nga dem fa nga yegg fa jamono tusubaar moom fexeel ba na nga fa fanaani moom moom minan yaa ngi ci bis Tabaski nii su ko defee boo xëyee nag na nga yóbbuwaale say doj war dem sànni ji jamra nag sànni ji jamra bisub ñaari tabaski ga juróom-ñaari juróom-ñaari juróom-ñaari xeer ngay sànni ca e, jamratul ula saa sooy sànni rek na nga boole kàbbar ak ñaan yàlla ba juróom-ñaari jeex mu jamratul ula nga dem ci jamratul wusta def noné nga def ci jamratul ula wa jamratul sa boko nangat nak abdir nga taxaw ab dir bala nga dem ci jamratul aqaba bo sànni ñaari ñëk ya nga taxaw nak ñaan fofa troll fa yalla magal ko julli ci ali salaatu salaam wax fa la nga bëgg lepp ci lu bax soga nak fitel jëm ci jamratul aqaba war ko sànni moy ñaaral bis tabaski ñettelu bis nga def noné foofa nag ku neexee nga yem fa ndax fa man taajjala fii yawmayn fala isma ali waaye wa man taaxara fala isma ali li man ittaqee su ko defee nag boo bu fekkee da ngaa bëgg a yem ci ñetteelu bis tabaski googe muy sa ñaareelu sànni jamra ñetti jamra da ngay fexe nag ba jant bañ la faa sooyee waaye ñetteelu bis tabaski boo fexee ba jant boo fexee ba jant sooyee la foofee ca minan faaw nag da ngay xaar ñeenteelu bisu tabaski nga xam mooy sa ñetteelu bisu jamra boobee nga sànni ko fa su ko defee kon loola moo mooy aj ga yaa ngi ci ñeenteelu bis tabaski foofu la aj gi yem muy barab bu tedd bu mag bëgg nañu boo doxee safa ak marwa googee ba noppi watu wala bu dee jigéen la nga jëmp sa karaw su ko defee nag yeeweeku nga ca aj ga waaye nag bëgg nañ jamono ji ngay nekk ci màkka ngay wër kaaba lu bari ndax wër kaaba ga naafile la waaye julli naafile la waaye foofe comme yow kaaba ga ci benn barab la nekk te mën naa am xëy na yaa ngi fay soog a ñëw te mën naa wóor nga ñëwaat fa yu demee noonu dañoo bëgg nga def sa naafile muy wër kaaba ga nga wàññi julli ya di naafila wër kaaba ga nag di ko def lu bari di omra lu baree bari ndax omra wax naa lu yomb la boo armalee wër kaaba ga dox saak marwa omra ga jeex na loolu mën ko def ñaari waxtu wala ko gëna a su ko defé nga wante ko war may kaaba ga nak makka jëmmi dëkk ba ci bopam sam wante ko war ma ja na nga nek baye faalu nga di liggeel nit ñi di yenu seeni jafe-jafe ak seeni di len japp rek seen bagage ya bul xëccoo bul ne diw fàdd nga ma bul ne diw dëgg nga ma su ko defee wàññi téléphone yi photo yi tiitaroo rek yàlla lay gis caméra bi ba doy na su ko defee nag boo demee bu bëgg ñibbisi nanga dem ca Kaaba ga nga wëraat ko moom la ñuy wax tawaaful xudóom waaye balaa loola na nga dem Madinatu Munawwara ñun Sénégal nag comme Madina la ñuy jiital loolu it baax na waaye bu doon jiitloo ko woon so demé ba paré ci makk ba sa agi jeex bala nga dem na nga ziyaar ji ku tedd ka ali sar senyara comme mang ci bir bir bir jumaaja nak sa ñaar rakka ko jumaaja ba soga dem ca ali sar salam nuyu ko dem ci Seydina Abubakar nuyu ko dem sayyidna Omar nuyu len te yëg ne yaa ci barab bo xamne lo fa ñaan yalla man la ko nangul kon euh, na nga ñaan yalla rambu la na nga ñaan yalla may la mujj gu rafet waye nak bo dem ba sa yitte jeex bul fa yagat ndax ñaara nit fum yag rek dana yeb barab bu mu rek da koy yeb su ko defé wax euh, ja day day di tàmbalee wanyuk. boo ñibbisi nag bëgg nañ nga ñew yor-yor lool sax ñi nek salum tam nañ ka daan gis bu nit ñewé makka day wut fu escale lu melni Dakar ak yu nga xam ne buy dugg si ci dëkk ba yooyu lay doon ñëpp gën a tàccandi ko bëgg nañu nga indiwalee addiya addiya yi nag la ca gën mooy zam sam ndax comme moom màkk rek mooy barabam bëgg nañ ngeen di zam-zam lu bëri ndax zam-zam li ma ba boo koy naan loo ci yéen yàlla defal la ko rek waaye nii ñu koy defee xam da ngay ñëw Sandaga te mën naam am sax ndeysaan ba ngay dem danga nga dajale woon li nga yor lépp. wala da ngaa teggoon sam nat wala da ngaa kos kosi far ñëw bëgg fee nekk di jëg jënd na ko quatre cent mille bëgg fee ñëw di baas indi fi xew moo xam ne kenn xamuñ toll te boo moytu nji sa dugg ci nga perte sonal say bopp sonal sa bopp sonal say bokk kon daal ko bàyyi ko màkk doy na sëkk nga indi sëri caab zam-zam doy na beneen ba ca topp bu mënta ñàkk mooy attendre ma waaye xew yu coow lu bari lekk ñëw fa di def nag suñu noonu loolu lépp mën na cee ñàkk kon aj màkkaangoog ñu àndoon ko nag ak daara ji daara soppe Mouhamad Ngari Fall ay ndaw yoo xam ne dañoo tàggatu def seen seen seen seen symbole def seen bakk mooy dundal xam-xam mooy suñu yitte tabarakallaahu di jaajëfal ñëpp di ñaan suñu borom mu nangul ñi dem ñëpp yóbbu si jàmm andi leen si jàmm ñun ñun ñëpp yàlla yombalal nu ak dem te nangul te indiwaat ñu si jàmm salaamaaleykum